mbokki julit yi mbokki talibé yi mbokki nga xamné yena baxo and ak ñun ci seen seen bi dal Al delu ci siwaat nañ ngir andat ak yeen jotaay bi nga xamné mom lañ baxo and ak yeen di Allahu wal qalam tay ji nak wara a doon agrom, juróom fukkeelu jotaay ak juroom ñu ci and ak serigne Abdul Ahad Lo serigne Abdullahi Lo doon ko xamne ku ñu xam la ci daayira bi di muqaddimatul xidma di taxawee ay liggéey yu am solo ci jumaay Touba mel na ne am na téere boo xam ne ci kor gi jàll lañ ko génnee téere boobu nag ci lañ fa yéene jëmale waxtaan wi xam naa sëñ Abdou Lahad dañ lay jox nga nuyoo ci biir nuyoo bi rek su ko defee nga wax ñu turu téere bi nga xam ne moom lañ tànn ngir waxtaane ko bismillah أعوذ بالله من ميلي لغير الرضا ومن سدود عما صنع فرضا بسم الله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده نزلا الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ضيبنا والي الوالي أركشي القديم السلام عليكم ورحمة الله ñoo ngi nuyu mbokk yi nga xam ne nooy ñooy bàyyi xel jotaay te suñu mbokk euh, albaaxis sëriñ Mbacke Diop Xodar di ko def ci seen bi di alxadimiya TV muy jotaay bu am solo di sargal bu baax mbokk yu baax yi nga xam ne ñooy boroom xam-xam yi taarifkat yi nga xam ne ñooy jaar ci jotaay bi ñu bëree bëri di ci gaaral seeni téere euh, xam naa tey jii nu war a ànd ak euh, sëriñ Mbacke wara garal téréb téereb bi nga xamné mom la da'iratu muqaddamatul khidma génné ci koor gi ñu weesu muy a'mal muhadarat ramadaniyah al munaqida fi masjid tubal jami' moy liggéey yi nga xamné moy am ci mom lañu def ci ay muhadarat ay waxtaan mm, ñu tënk ko ci ab téré génné ko téré bobu nak lañ wara garal mu tuddu a'mal muhadarat ramadaniyah munaqida fi masjid tubal jami xamna tere bobu lañ wara a ak suñ mbake jangat ko xam li nga xamne mo tax ñu taalif ko ak lan tomb yu am solo yi nga xamne nek na ci bir tere bi ñu tuddu ko bismillah yef serigne Abdul Ahad wala serigne Abdullahi Abdul Ahad ak Abdullah moom daanaka sore mm-hmm. ñu ñing lay sante bu baax ci ubbee gi ak leral gu am solo gi téere biñ tànn ni ko waxee mooy amalul muhaadaraat arramadaniya doon téere boo xam ne dañ cee dajale ay waxtaan yoo xam ne day ame ci biir jumaay Tuuba ji ci jamonoy weeru koor kon loolu day wane turu téere bi ak li tax téere bi jóg xam naa jëmmi téere bi sëñ Abdul Ahad mel na ne téere la boo am te nii bu yaatu la lool làmbo ay tem yu wuute yu fasanti ko ndax man nañoo xam waa daayira bi nga xam ne ñooy waa muqaddimatul xidma ñoom ñi ko boole dajale ko mu doon ab téere biñ koy dajale nan lañ xaajee téere bi maanaam taqsimul kitaab li nga xam ne noonu lañ ko xaajee ci ay buntu hmm. ndax ma def naa xam taqsimaat boobu dëgg-dëgg. waaw kay sëñ Mbacke jërëjëf euh, mooy xam naa téere bi ñu ngi ko séddale ci juróomi xaaj wala juróomi anaasir euh, mooy xaaj bi njëkk bi daanaka day tënk rek mooy tàmbali gi lu yaaju ci téere bi ci boppam niñ ko taalifee euh, mooy diibaaj bi ak xilaaf beeg yooyu. Euh, loolu lépp day dugg ci xaaj bu njëkk bi ak li ñu taqdim bi ak muqaddamatul kitaab yooyu yëpp ay mawduwaat la yoo xam ne ci biir euh, an ansur bu njëkk bi ansurul awwal bi wala xaaj bu njëkk bi yooyu ci yooyu ci lay dugg mooy te muqaddama ak muqaddamatul kitaab ak taqdimul kitaab bi euh, ñu ngi ko def ci benn ci leeral jëmmi daayira muqaddamatul xidma mooy lan mooy ban daayira ak ay liggéeyam Euh, leeral nañ ci tamit euh, mooy jëmmi nuy présenté téere mooy taqdim ko euh, loolu ki ko def mooy raisu lañ na saqaafa di sëriñ Abdou Lahad Bousso Thierno ak ni nga xam ne tamit moy mooy taqdim jëmmi téere bi mooy tàmbali gi i gi boobu tamit sëriñ Afiya Bousso Muxtaar al imam nga ne mooy raisu daayira mooy njiitul daayira muqaddamat xidma moom moo ko moo ko def Euh, yooyu yëpp daal xam naa mooy dugg ci xaaj bu njëkk bu njëkk bi euh, comme niñ ko xaajee ne juróomi xaaj yi mooy xaajo ñaareel bi moom ñu tënk ci lenn ci daal niñ tuddee al mihwaru fiqhi mihwaru fiqhi wala unsuru boo xam ne daaju ci mooy unsuru saani euh, daaju ci mawduwaat yoo xam ne ci fiq la gën a aju nga ne moom li muy wax ci mawduwaat fiqhiya la yooyu am na am na lu toll ci yow fukki fukki mawduwaat mooy fukki tomb fukki tomb yoo xam na ci wàllu fiq la jëm ci xaaju ñaareel bi xaaju ñetteel bi tamit am na lu ñu tuddee almihwaru suufiyil muridi nga xam ne ci wàllu tasawuf lay wax ak ci wàllu murid gi mooy jëmmi sëriñ bi ak mbindam nga xam ne xam nañ ne loolu moom ci ci lay wax xaaju xaaju ñeenteel bi nag euh, wala juróomeel bi mooy wax ci euh, ay maw lu ñu tuddee mawduaat mutanawia moom lu ñu tuddee qadaaya saa yo actualité moom ay thème ay yoo xam ne dafa aju ci dafa gën a gën a jon joo ak dund gi donte jëmmi téere bi yëpp li mawduaat yi ci nekk yëpp fiq yi bu ñu waxee mawduaat fiq yi tamit fiq bi tamit daa aju ci dund gi ci dund gi la bokk waaye bu ñu nee qadaaya saa tamit moom daa gën a nekk yoo xam ne ñu tuddee ay thème actualité yoo xam ne euh, ay jàngat yoo xam ne ay borom xam-xam ñoo koy def ci jëm ci thème yoo xam ne dafa aju ci benn wàllu tos wàllu économie wala social wala culture yooyu nga xam ne ay ay la ak ay euh, delluwaay dund dund yi ci ci wàllu ci jamono yooyu daanaka mooy mooy mawduaat mutanawwi'a yi mawdaat yeneen at yi nag comme niñ ko waxee ne moo xam ne dafa dafa tënku ci benn ñu xam ne dañuy wax ne mawduwaat bii kenn mënees nañ ko dugal ci wàllu tasawuf maanaam la muy wax ci tasawuf la gën a jëm ak mawduwaat boo xam ne lii li muy wax moom ci wàllu fiq la gën la gën la gën a jëm comme daal juróomi xaaj daal ci lañ ko ci lañ ko tënk ci lañ ko séddalee mooy ci mooy yooyu ñu wax noonu mooy tàmbali gi ak lenn laaju ci fiq wàllu laaju ci wàllu tasawuf ak murid gi ak leneen laaj aju ci mawduaat mutanawiyan yi ak ni nga xamne ne yi nga xamne dañ ko dañ ko dugal ci biir euh, alon surul awwal bi ok yaf euh, serigne abdullah ci tontu ba am solo bi buñ déggé ni nga léralé day melni téré bi di xajib ñaarel bi mm-hmm. wala al wa thani muy mm-hmm. ñaarelu téré bi ngeen génnee mm-hmm. da ngeen ko séddale ci juróomi maxaawir maanaam maneef na koo tuddee rek ay euh, bunt wala sax mën naa gën a yaatu bunt maanaam juróomi xaaj ngeen ko def xaaj bu njëkk bi jëm ci muqaddima muy ab introduction boo xam ne dafay aju ci introduction jëmmi téere bi ak it boo xam ne dafa jëm ci daayira bi nga xam ne ñoo bind téere bi di waa daayira muqaddimatul xidma bu loolu jàllet am na ci benn meexwaar boo xam ne dafa jëm ci wàll fiq muy lu jëm ci ay julleek woor ak aj mbàkka xeet yu mel noonu am ci boo xam ne mi ngi jëm ci tasawuf muy soufisme waaye noonu tamit la amee ay mawduwaat muy thème yoo xam ne dafa nekk thème yu fasantikoo yoo xam ne manef naa ne day gën a laal mm-hmm. actualité bi mm-hmm. xëy na bu ma jumut yooyu mooy tomb yi nga xam ne mm-hmm. mooy tomb yi gën a fes ci biir téere bi yi nga xam ne waa Muxaddamatul Xidma génn génne nañ ko Sëñ Abdou Lahat euh, téere bi ndax maneef naa xam euh, xaj mu bi nu mu toll dëgg-dëgg ak it euh, mawduwaat yooyu nga xam ne dafa aju ci wàll fiq ndax yëpp rek dafa doon ay thèmes yoo xam ne dañuy jël ab thème bu jëm ci fiq rek traité ko. Hmm. wala ndax ci biiram daa am ay fatawaa yoo xam ne muy ay laaj ak hmm. ak ay tontu yom te ni daa nekkaale ci biiram. waaw jërëjëf sëñ Mbacke comme niñ ko waxee léegi nii euh, mooy téere bi moom mi ngi toll ci euh, ay xët juróom benn fukki xët ak juróom benn fukk euh, ñetti téeméeri xët ak juróom benn fukk ak juróom 365 xët la la téere jëmmi téere bi yëpp. boo ci boolewut euh, xët yu njëkk yi nga xam ne mooy mooy tàmbali gi ak feggu week yu demee boo ci génnee moom trois cent quarante huit lay doon waaye boo ci boolee xët yu njëkk yi ak tàmbali ak euh, ñu tuddee euh, xët yi yu njëkk yi dimbiteer bi yëpp daal mu ngi toll ci trois cent soixante cinq moom kon xaw xaw naa sakkan lool xajma bi comme niñ ko waxee tamit fatawaa bi tamit ci biir ci biir fiqi lay dugg ci biir fiqi lay dugg waaye tawit teewut Euh, mën naa nekk am euh, ab mixwaaru boppam war boppam la moom ci biir téere boo xoole niñ ko séddale eh, juróomi juróomi xaaj yi juróomi xaaj yi nga xam ne wala juróomi bunt wala juróomi tomb yi nga xam ne noonu lañ tënkee téere bi euh, te waxoon nañ ko mooy alonsorul awal nga xam ne dañ caa tënk lenn ci tàmbali gi lu ñu tuddee muqaddamatul kitaab ak taqdimul kitaab ak nubza taarifiya an daairati muqaddamatul xidma ak ak shukur wa taq wa li Eh, ñi nga xam ne ñoo ci eh, jàpp ci li liggéey ci téere bi eh, ñëpp màddee ba maanawiyan loolu mooy al unsur al mihwarul awwal wala al unsurul awwal mooy xaaj bu njëkk bi mooy bunt bu njëkk bi bunt ñaareel bi waxoon nañ ne mooy mihwaru fiq yi fiq yi xam nañ ne fatwa tamit fatwa ci biir fiq la dugg waaye teew dañ ko beeral mihwaru boppam kon mooy mooy ñetteelu mihwar bi kon comme nañ ko xamee moom it fatawa yi toll na ci juróom fukk ak ñeent ci ay fatwa loolu loolu nag dañ ko tànn ci biir waxtaan yi nga xam ne moo doon moo doon am xam naa leer waroon nañ leeroon ci tàmbali bi ne eh, jëmmi téere bi eh, ginnaaw al isdarul am yi ñu ngi ko génne woon ci eh, atum 2018 2018 bii ñu génne ko ci 2022 bii kon diggante bi am na lu ma daanaka juróomi at wala lu ko jege nga xam ne am na ci ay mawduaat sax yoo xam ne Eh, téere téere bu njëkk ba fekk na ko fi waaye teewut dañoo tànnoon yenn Maodo dugal ko fee bi yeneen yoo xam ne diggante maanaam 2017 lañ lañ ko waxtaane te ñëw na ci téere bii nii kon daanaka ay waxtaane juróomi at yoo xam ne moom lañ jël tànn fa ay Maodo at yoo xam ne yu fasanti ko yoo xam ne jàpp nañ ne yii moo gën a yëtteel ñu jël ko eh, mool ko ci téere bi jërëjëf sëriñ Abdoulahi ñu ngi lay sant bu baax buñ déggee li nga jot leeral dañuy gis ne téré bi mo gëna yaatu téré bi bu njëkk ba ndax bi maneef na ne ñetti téméri xëd la ak lu tegal euh, bu ko défé tamit lu ne yi muy ubbé yi nga xamné ay boroomi xam-xam ñu xam ci dëkk bi di Touba ñoko doon def dañuy gis ne dañ ko béral mexwaru bopam manam da dañ ko béral buntu bopam ne mm-hmm. lu mat juroom fukki fatawa ak lu tegal mi ngi ci mm-hmm. Eh, ni nga xamné fiq da am buntu bopam lu jëm ci tasawuf am buntu bopam lu jëm ci yenen yi ci dess am seen bunti bopp mhm. loolu do na lu ci am solo lo xamné ne lu mata a mhm. xel mhm. xam naa kon abdullah hat wala abdullah euh dañuy ñew nak ci mawduwaat yi nga xamné ne nekk ci biir téré bi ndax man nga ñu ci tuddal yenn ñu xam mawduwaat yoy ak ñi nga xamné ñom ñoko doon def Hmm. waaw kay jërëjëf sëñ Mbàkke ci gaaral gu am te laaj yu am solo yi waaw comme niñ ko waxee rek euh, téere bi euh, ginnaaw juróomi bunt wala juróomi maxaawir euh, lañ ko tënk mixoor bu nekk daanaka ci bi ñuy wax léegi waxoon nañ ne mixoor bu njëkk moom lañ ca la ca nekk mooy bu njëkk may mooy taqdimu kitaab bi te mooy jëmmi jëmmi wala présenté ko ci mm, ci ci ak global Euh, ak wax liggéey bi nga xam ne moom la daayira bi def loolu mooy euh, sëriñ Afia Bousso Muxtaar mi nga xam ne al imam la ci jaamiu Touba di di njiitul daayira muqaddamatu xidma moom moo ko def moom moo nekk ci xaaj bu njëkk bi euh, moo tàmbali gaay téere bi am na lu ñuy tuddee tamit muqaddamatul kitaab mooy jëmmi présenté téere bi noonu bee taqdim la bii muqaddimatul kitaab daanaka sorewuñ waaye muqaddima bi eh, ki nga xam ne moo jiite lañ na saqaafa da xam ne da jëmmi bi yëpp amal muhaadaraat ramadaniya eh, jëmmi liggéey daayira bi yëpp dañ ci dañ ko cee fësalaale eh, jëmmi jëmmi liggéey daayira bi yëpp donte ay commission yu yu bëri wala ay lijaan yu bari ñoo ko ñoo ko composé waaye lañ na saqaafa bi ñoom ñoom ñooy yore wàllu xam-xam bi wàllu bindi ay téere ak taxawee waxtaani mu yi bi ki nga xam ne moo jiite lañ na saqaafa moom moo ju moom moo def présentation mu kitaab téere bi moom moo def muqaddamatul kitaab di sëriñ Abdou Lahad Bousso euh, Thierno euh, naka noonu tamit euh, beneen am nañ beneen nubza taarifiye boo xam ne tamit jëmmi daayira bi lañ ci lañ ciy leeral loolu tamit mm, waa lañ na ilaam ya ak jëmmi al amaana al amma secrétariat daayira bi ñoom ñoo ko ñoo ko taxawee ñoo dugal ko ci dugal ko ci biir téere bi euh, naka noonu tamit euh, li ñu tuddee ci biir mawduwaat yi nga xam ne nekk na ci biir unsur boobu am na am na ci benn benn mbind moo xam ne li ñu tuddee shukr wa taqdir moom tamit euh, ñu ñu def ko ngir sargal ñi nga xam ne ñoo doon ñoo doon def def téere bi ñoo ñoo si doon liggéey ñoo ci doon yëngu mihwar bu saani bi alfim nu waxoon mihwar fiqhi bi li ci nekk ci ay mawduwaat toll na ci fukki mawduwaat fukki fukki tomb fukki tomb fukki tomb yoo xam ne ñoo nekk ci biir ci biir mihwar fiqhi bi bokk na ci mawduwaat yi li ñu tudde maqasidu shari wa daruratu muraatiha fi tasriil ahkam boobu ki ko def di docteur Abdoulahat Mohamed Lamine Sané docteur Abdoulahat Sané mi nga xam ne moom lañ xam loolu nag daanaka mën nañu daal sax euh, mawdon bu nekk ak euh, safa bi mu nekk ko xam na ko ne yor na téere bi wala mu yër ko dana xam mawdon boobu nekk daanaka moo ci bokk na ci mawdon yi ci njëkk ci muxwaru fiqhi bi mu nekk ci safa diggante 17 ba quarante toll ci 23 euh, safa mooy ñaar fukk ak ñett ci ay ay ay paas mawdon bi nga xam ne tamit mawdon fiqhi la moom itam mooy al ibada xaqiqatuha wa aasaaruha aqiqatuha wa aasaaruha mooy jëmmi jaamu ak dëgg-dëgg jaamu al ibaada mooy lan eh, bu ñu waxee ibaada mooy lan lan mooy dëgg-dëgg ibaada baat baat arab bi noonu mm, lan la làmboo ak lan lan moo ci nekk ak yan jeexital la lay def ci eh, kii def ibaada xeeti ibaada yëpp loolu ku ko leeral mooy almufattish Cheikh Mouhamadul Muntaka Jatara mi nekk ci diggante 41 ba 54 toll ci fukki safha ak ak ñett mooy 13 safha naka noonu tamit ci mawduaat fiqhiya am na ci al libaas fi mansuuri saria al islamiya boobu tamit waajal di sëriñ Cheikhouna Mbacke Abdoul Wadoud euh, moom tam muy ak col col col col rek wala jëmmi ak ak col ci gisiinu lislaam wala ci gisiinu sharia al Eh, nit eh, julli eh, ab julit wala nit ci bopam ciol gi nga xamne mom lay sol diko sutura suturaale awraam yan atté la ci l'islam joxé ak yan yan jang la ci l'islam joxé bogo Serigne Cheikh Oumar Mbacké Abdou Wadoud moo def mu ngi nek ci digënté passu 55 ba passu 58 tollu ci ñenti ñenti pass bo xolé tamit ci biir mihwar fiqih tamit amna ci euh, buñuy wax as-salatu shukran wa madmunan moy jëmi julli euh, ci ci kaw ni julli ci kaw ni ni ngi koy ak lim lambo ci bir moy a shokran wa madmunan bobu ko waajal moy serigne habibullah Jatara mom tam di ko ñu xam di ab kat mi ngi nekk ci diggante page 59 ba soixante mu toll ci 17 page amna tamit ci bir fiqhiya sawmu ramadan wa xukmuhu xukmuhu wa aadaabuhu bi ku ko waajal di sëriñ Seexuna Buso moom suñ Musaa Baaxir di jàngale fee ca eh, jàkkee suñ Mahmudan ji eh, waxtaane woon ko ci at yi eh, moom itam mu tool mi nekk ci diggante paasu 77 ba 83 toll ci juróom-ñaari paas ak naka noonu tamit ci mawdaan fiq yi am na salaatul iidayni wa zakatul fitri moom tam ki ko waaja di sëriñ Masamba Bousso moom tam ku ñu xam la ci e, dëkk bi di gëstukat di e, di faral def ay jotaay xam-xam mu ngi nekk ci diggante 84 ba 90 am na lu te tëj tamit maa laa yajuuzu bay'uhu yi nga xam ne dëgganut jul ab jullit di ko jaay yooyu e, ay sew sew yoo xam ne ay seetlu la yoo xam ne yoo mënees nañu ko tudd ay mbir yu bari yoo xam ne dëgganut ci ab jullit mu koy jaay loolu ki ko waajal xam ci loolu fiq laaju euh, mooy euh, ki ñu xam sëñ Mbàkke Abdourahman al imam di moom tam ku ñu xam ci wàllu wàllu gi ci wàllu leeral ci wàllu fiq loolu mi ngi nekk ci diggante cinq quatre ba quatre-vingt-quinze ci ay ci mawdu boobu naka noonu tamit li ñu tuddee asharika asharika fil fiqhil maliki anwaahun wa ahkaam asharika mooy li ñu tuddee euh, société mooy nit ak nit wala mbooloo wala lu man ñaar société bokk bokk jël seen alal bokk ko nga taxawal dara nga taxawal dara euh, loo xam ne day dañ cay séentu ab bénéfice bu ñu mën a mën a euh, yokkee seen alal loolu xam loo xam nga ne loolu dafa am ay attey lislaam ay atte yu caaju yu bëri boobu te boo xam ne moom tam Euh, mën naa nekk sax Maodo ñi euh, euh, nga xam ne dafa aju ci wàllu économie nga xam ne sharika ak loolu la ci aju boobu tam ci fiq la boole ci ki ko waajal di sëriñ Jiil Buso sëriñ Abdou Khadir Buso Alxaaji Seex moom tam di ko ñu xam di gëstukat mook tamit nekk jàmbaar lool ci daayira Muqaddamatul Xidma nekk ku ñu xam ndax téere bi tamit moom tam bokk na ci ñi nga xam ne liggéey nañ ci liggéey yu am solo ndax moo bokk ci ñi ko doon coordonné ak di ko toppaat ndax moom borom xam la nekk gëstukat koo xam ne eh, gaaraloon na téere bi sax ci ci koor gi eh, moom kon moo waajal eh, thème boobu mi ngi nekk ci 96 ba 137 muy kon muy 40 pass moo kon moo dox bu yaatu la boo xam ne daanaka boo xoolee boo seetloo da nga gis ne moom yaakaar naa moo ci gën a moo moo moo ci gën a yaatu moo ci gën a yaatu ci boo xoolee pass yi nga xam ne moom la moom moom la occupé naka noonu tamit am na ci beneen bu ñuy wax alqada fil islam euh, mooy atte atte mooy ñu tuddee atte ñaari nit jote wala mbooloo dara xew ñuy soxla woo ci atte bi lislaam wala wala jëmmi atte rek jëmmi ate boobu nag naka la naka la ko lislaam jàngale ak naka la ko lislaam gisee loolu ki ko waaje di almufattish euh, sëriñ Cheikh Mbacke ñang moom itam moo waajal tem boobu nga xam ne ci wàllu fiq la aju kon bokk na ci kon tam yi tamit li ñu tuddee asihru xukmuhu wa mazahiruhu wa awaqibuhu jëmmi ak njabar lan mooy ab atteem ci lislaam ak la yan mooy ay mazahiram moom yan yan yan lay yan moo ci gën a fees moom yi ñuy def lu nit kiy def wala luñ mën a gis ne lii ak njabar la yooyu noonu yuñ ci mën a tudd ak yan jeexintal wala yan mujjantal lay lay def ci tamaat mooy ci eh, jëmmi société bi ak eh, mbooloo mi ak ñun ñëpp rek jullit ñi wala ku dul jullit eh, loolu ki ko waajal di sëriñ docteur sëriñ Xaadim Silla ak docteur nga xam ne xam nañ ko moom tam di ku yàgg a def ay waxtaan te xam xam niñ koy jàllale moo kon moom moo dox bu am solo la thème bu am solo la boo xam ne moom tam ci fiq la aju nga xam ne njabar ak ay ay jeexitalam wala ay ay phénomène am nu muy nu muy fese ak ni muy manifesté woo ak jeexital yi mu am euh, boobu tamit ci maxaawir fiq yi la la bokk kon ci docteur Khadim Sylla moo ko moo ko def mu ngi nekk ci diggante 146 ba 155 kon euh, ñetteel bi ñetteelu unsur bi mooy euh, mexwar fatwa bi waxoon nañ ko léegi waxoon nañ ne dañ ko beral ab mixooru boppam loolu te waxoon nañ ne dañ dañ koo tënk ci eh, ay mawduwaat yu ay fatawaa yu bëri la ndax eh, xam nañ ne téere bi tënk na ay ay lu mat ñeenti at wala juróomi at loolu nag dañ caa tànn ay mawdu ay ay ay laaj ak eh, ay laaj dugal ko ci ak seeni seeni ton ñu jël ko bind ko dugal ko ci dugal ko téere bi loolu tànn juróom fukk ak ñeent lañ ci tànn juróom fukki ak ñeent nag nii lañ ko séddalee eh, am na ci fukk ak juróom yoo xam ne sëriñ Cheikh Bousso Assane moo ko ton mi ngi nekk ci diggante page 159 ba 165 Cheikh Cheikh Bousso Assane di imam ci fee di Guédé Bousso di xam moom itam diggante lu toll ci juróom-ñaari paas nekk noonu tamit sëriñ Mbacke Abdourahmane tontu na ci fukk ak juróom moom itam ci fatawaay yooyu nga xam ne moo nekk ci biir téere bi diggante paasu 165 eh, ba 170 toll ci juróomi paas euh, sëñ Cheikh naa Mbacke Abdoul Wadoud tontu na ci moom tam ci tontu laaj yooyu lu mu toll ci ñaar fukk ak ñeent mooy vingt quatre mm, fatwa yoo xam ne tontu na ko ci ci biir juróom fukk ak ñeent. kon ci boo xoolee ci xaaju ñaare bi loolu ñu tudd nañ euh, wala xaaju ñetteel bi mooy mooy fatwa bi xaaju ñeenteel bi al unsuru rabi euh, am na li ñu tudd al mihwaru suufi yi muridi boobu tamit. Euh, diggante paasu cent soixante dix neuf ba cent ba deux cent quatre vingt six loolu euh, mawdaat yi ca nekk mooy yi nga xam ne day wax ci ak euh, tasawuf ak di wax ci yoon wi ci murid gi wala ci njàngalem Seexul Xadim radiyallaahu anhu loolu mi ba ci njëkk mooy tajdiit am lu ñuy tuddee tajdiit tajdiit mooy yeesal ci diine lan mooy aw dégginam ak yan lan lan lan lan lañ war a yeesal majaalaatuhu lu ñuy yeesal ci diine loolu ki ko def mooy euh, Cheikh Afia Ahmed Bousso Cheikh Afia Ahmed Niang mi nga xam ne xam nañ ko ci ay taxawaayam ak waxtaan yi nga xam ne moom lay def ci barab yu wóote ak bayaan yi nga xam ne moom lay def ci jumaa ji muy ku xam lool njàngalem Seexul euh, Xadim loolu mi ngi nekk ci diggante 181 ba 186 toll ci 181 mm, euh, ba 186 toll ci juróom benn paas Euh, naka noonu tamit am na ci beneen thème boo xam ne tamit moom dem ci sëriñ bi lay wax nga ne ci murid gi ci tasawuf mooy a cheikh ahmadou bamba al abdul xadim raditu billahi rabban euh, loolu moo nekkoon mawduu moom moo nekkoon thème bi kooku ki ko waajaloon di sëriñ xalil mbàkke moom sëriñ moustapha absa moom mu nekk sët ci borom daaru Euh, moom lool thème boobu wala Maodo boobu mi nekk ci diggante 187 ba 195 toll ci juróom-ñeenti paas euh, neuf safha euh, naka noonu tamit ci eh, Maodo di am na Cheikhul Khadim wal islam sëriñ bi ak njàngale lislaam wala jëmmi lislaam ci boppam loolu ki ko waajaloon di Cheikh Ahmadou Mbacke moom sëriñ Mourtada Mbacke moom sëriñ Cheikh Fati Fall moom borom daaru Euh, loolu tamit moom te suñu Cheikh Ahmadou moom tam ku ñu xam la ci wàll gi ci waa njàngalam sëriñ bi loolu Maodo wax boobu mi ngi toll ci cent quatre vingt ba deux cent seize toll ci moom da ñaar fukki paas am na ci beneen tamit bu ñuy wax moo mafahimun fi xaajatin ila tas ila tasxiix fi xaajatin ila te yooyu ñu mooy ay déggin yoo xam ne dafa wala ay ay baat yu ñuy jëfandikoo ci murit gi te laaj ñu taxaw ci leeral ko wala ñenn ñi am ci aw aw déggin ñu ñu jubban maanaam jub déggin wañ eh, ca am laaj na jooyante laaj na jubbante loolu di ki ko doon waxtaan moom tam mooy sëriñ Afia mi ñu waxoon léegi sëriñ Afia Ahmad ña eh, loolu nag dañ caa tànnoon ñett eh, mooy lu ñu tuddee al mubaaya ak al izn ak al xidma mooy jaayante ak ndigal ndigal ak jëmmi xidma gi ñuy wax dañ ko baat ay baat yoo xam ne dañ koy jëfandikoo lu bari fii ci murid gi wala ci yoon wi uh, mooy la jaayante mooy lan dëgg-dëgg nan lañ ko war a déggee ci njàngalem sëriñ bi uh, li ñu tuddee ndigal tamit jëfal jëfe ndigal wala bàyyi tere loolu lépp nuñ ko war a déggee uh, xidma tamit lan mooy aw déggi na woo xam ne moo gën a dëppoo ak njàngalem sëriñ bi loolu sëriñ Afi Ahmad Ñang moo ko doon moo ko doon def te ab tam la boo xam ne ba am solo mu ngi ci biir téere bi Euh, mi ngi nekk ci diggante paasu 207 ba 229 toll ci fukki paas ak ñaar euh, am na ci ci biir euh, mawdaat wala mihwar fiqi muridi mihwar suufi muridi nii de al awlawiyaat la de Cheikh al Xadim boobu ki ko waaja di al Seydil Mudir Serigne Fall bu sa Cerno mu nga mooy mudirul Azhar ci Thiès mbokk euh, tamit ci ñenn ñi nga xam ne dañuy faral di def bayaan ci jumaa ji moo doon waxtaanee yi nga xam ne daal moo gën a yàlla wala li nga xam ne sëriñ bi moom la daan jiital moom la daan jiital ci wala li li ñu jàpp ne sëriñ bi ci am njàngaleem moo loolu yooyu lañ war a gën a jiital euh, loolu tem boobu mi ngi toll ci mu nekk ci diggante deux cent trente wala deux cent diggante deux cent trente ba deux cent quarante cinq toll ci fukki paas ak juróom. Euh, am na tamit li ñu tuddee addua aadaabuhu wa aasaaruhu xam nga ñaan tamit moom tam mën naa nekk euh, moom tam ci wàllu tasawuf wala mu nekk ci ci wàllu mën nañ ko dugal tamit ci wàllu fiq ba tey waaye euh, moom tam ki ko waajal mooy sëriñ Ahmad Samb al mudir moom mooy mudirul Azhar nekk ci ndam markas Xaadim Rasul moom tam mawduu boobu ñaan ak ay tegginam ak ay jeexital yim am ci ki koy def ak jëmmi société bi cent 246 la nekk ba cent 262 toll ci fukki paas moom ak juróom-benn euh, am na tamit bu ñu tuddee aljaliyal muridiya machaayik la waxu lool loolu ki ko def mooy sëriñ Abo Soxay bu Kebe moom tam di gëstukat di bindkat di ku ñu ku ñu miin ci jotaayu xam-xam yi mooy ñi nga xam ne dañoo nekk ci bitim réew di ay seeni jafe-jafe. ak jafe-jafe yoy lan lañ wara def ba man ko safara ci eh, ko ko ci njàngalem Seexul Xadim loolu thème boobu la doon euh eh, mi ngi ci bir téere bi mi ngi toll ci diggante 263 ba 286 di toll ci 23 safha euh kon xaj bu mujj bi mooy xam ne mooy juróomeel bi tudde woon nga mawduaat mutanawia ay ay ay ay tomb yu wuute yu fasanti ko yooyu tamit mu ngi toll ci yooyu mën nañ caa tudd moom itam al ixtilaaf mafhumuhu wa asbaabuhu wa aadaabuhu mooy e, ni nga xam ne ñun ñi ñi dundee nii déggin yi ñuy am ak wuute gi ci ciy ca wuute wuute wuute ay gisin loolu lan lan mooy wuute aw gisin dëgg-dëgg wala wuute ay xalaat lan ban mafoom lañ ci war a am ban ban déggin lañ ci war a am ak lan moo koy sabab ak lan moo buñ bu amee tamit yan teggin lañ war a jëf jëflante ba wuute googu du du jur ay lor loolu ki ko doon waxtaane mooy Serigne Cheikhna Mbacké Abdoul Wadoud moom tam mu toll ci paasu 289 ba 297 tollu ci juroom ñeenti pass euh amna tamit tam bo xam mu ngi tuddoon ahamiyatu salam fi hayatil fardi wal mujtama moy jamm am solo gi am solo ci dundu kenn ku nek ci nun ak jëmmi société bi yëpp moy mbolay gi lolu ki ko daan def moy serigne Mouhamadou Xaban Mbacke mom Cheikh Mouhamadou murtada eh, mi ngi ci diggante 296 ba 306 Euh, naka noonu tamit am na lu ñu tudd ak taayus silmi ma wa muqawimaatuhu moom mooy nu ñuy def ba dund dund dund eh, seq jàmm ñun ñëpp ñu seq jàmm kenn ku ne nekk ci la nga nekk mën a seq ak keneen koo bu wuteel da ngeen nekk dund ci jàmm ak yan xam ne mooy ay sukkandiku kaayam ba ba jàmm jooju mën a dund eh, seq jàmm jooju mën a mën a mën a mën a mën a wéy mën a mën a dëgër loolu ki ko waajal mooy docteur Serigne Moustapha Diop uh, Ndar moom itam di ku ñu xam ci xam-xamam jotaay yi nga xam ne dana ko amal ci dëkk bi ak ci barab yu wute loolu mi ngi nekk 307 ba 313 nekk juróom-ñaari paas uh, am na tamit ci biir mawdaat mutanawiha yi kayfa nu waajihu at tayaarul fikri al hadam uh, mooy gisin yi wala xalaat yi nga xam ne eh, ay ay yeneen kuréel yi dañ ko am te mu nekk ay ay gisin wala ay ay xalaat yoo xam ne daam day màbb day màbb li nga xam ne moom moom moom moom lañ nekk moo xam ci ay aada wala ci wala ci ay pas-pas diine eh, yeneen xalaat ah, yeneen mbooloo am ay xalaat fexe ba dugal ko ci eh, suñu nekkin nun murid wala ñun jullit ñi Eh, tayaaraat yooyu wala gisin yooyu nga xam ne day day màbbu day màbbu lañ suñuy suñuy eh, jikko wala wala suñuy pas-pas yu baax yi amoon loolu nu ñuy fexe ba jàmmaarloo ak ak xalaat yooyu yi nga xam ne yi màbbu la lool loolu mawduu bu am solo la boo xam ne bu Fallou Bousso Thierno moom da moo ko def nga xam ne moom da waxoon nañ ne mooy mudirul Azhar eh, Cheikh Mouhamadoul Bachir bi nekk Thiès ne loolu mi ngi nekk diggante page deux cent deux trois cent quatorze ba trois cent vingt trois toll ci fukki paas am na tamit li ñu tudd an nizaam fawaa'iduhu wa daruratuhu moom organiser wala ak nose nos nos ay mbir mu mën a doon moo xam ci diina wala wala ci dund gi ñu dund dund àdduna mbiri àdduna kese wala ci murit gi jëmmi nose rek lan mooy ay njëriñam ak am wala ñàkk gim ñàkk loo xam ne lu mënta ñàkk la ci mbir mu mën a doon ñu nose ko maanaam ah, mun mbir mu mën a doon bu ñu bëggee mu baax mënta ñàkk ñu nose ko loolu sëriñ Mbàkke Abdourahman al imam moo ko doon moo ko doon taxawee mi ngi toll ci eh, diggante paasub 325 ba 331 toll ci sept paas mooy juróom-ñaari xët am nañ tuddee tamit axtaa un tarbawiya nar takkibuha mooy ay njuumte njumte yu ñuy yoo xam ne ñun ñii dañ koy toggoo moo xam kilifa yi wala ñi nga xam ne ay jàngalekat la wala képp koo xam ne daal am nga loo yilif di ko wala koo yilif di ko yar di ko di ko saytu am na ay njuumte yoo xam ne njumte yu jëm aju ci yar la te ñu bari ñu bari ci ci nit ñi dañ koy dañ koy def yooyu nag euh, sëriñ Fallou Boussa di mudirul markaz sëriñ Mbacke Boussa Alassar bee nekk ca garage Darou Mouhty moom moo ko doon taxawee moom tam muy tam ba solo boo xam ne koo xam ne yër nga téere bi da nga gis ne tam ba am solo la lool. mi ngi toll ci 332 ba 341 am la ñuy tuddee tamit a at at tanmiya mafhumaha wa muqawwimatuha ñu tuddee développement wala yokkute euh, lan mooy aw dégginam ak yan mooy ay sukkandiku kaayam euh, loolu sëriñ docteur euh, seriñ Samb sa moo ko doon def al mufattis mu ngi toll ci deux cent ba 352 cent toll ci 11 pages moy fukki page fukki xët ak ben xamna ci tam bi ci ñaar tam yi ci muju wala bi ci muju euh moy al ama wa daruratul muha wa daruratul muhafazatu alayha li ñu tuddee li nga xam ñun ñepp ñoko bok société bi yépp wala réew wa réew mi yépp ñoko bok mo xam ay yoon la mo xam ay ay barab la Euh, wala alal la alal la ju ñëpp bokk yooyu ñu tuddee al mumtalakaatul amma ay moomeelu ñëpp loolu nan lañ ko war a sàmmee euh, ba ñaŋal ko ba ba dara du ca màjj wala leen lu nekk nañ ko war a saytoo ñu saytoo ko noonu loolu tamit tem la ba am solo boo xam ne Serigne Fall Bousso Hassan al Mudir moo ko doon def moom itam ah, deme ni kon am na ci moom itam ñaari ñaari tomb yoo xam ne mu ci biir téere bi xam naa yooyu daal mooy mooy ci tënk mooy mooy yi nga xam ne nekk na ci biir biir biir biir kii bi eh, yi ñu tuddee mawdu'aat mutanawiya yooyu eh, noonu lañ ko tënkee xam naa wax nañ wax nañ buñ bu njëkk bi mixaaru bu njëkk bi li ci nekk wax nañ tamit mixwaaru fiqhi bi yan mawdu'aat moo ca nekk wax nañ tamit eh, mixwaaru al muridi suufi yi yan mawdu'aat yi moo ci nekk ak kan moo ko def Euh, yow wax nañ tamit fata fatwa yi ñaata fatwa la ak ñi ko tontu xam naa xam naa dañu wàcc foofu ñu kàddu ba ba dellusiwaat incha allah. ok jërëjëf sëriñ Abdullahi ci tontu ba am solo bi mel na ne téere bi képp koo xam ne amu ko woon. Hmm. amaana bu déggee lii dana xam yan mawduwaat la làmboo maanaam thème yi nga xam ne. moo ne ci biir hmm. ci wàllu feq hmm. ak ci fataawa di ay laaj ak ak it lu jëm ci wàll soufisme gën a joyal nag jëm ci yoonu murit hmm. ak it thème yoo xam ne dafa fasanti yu wuute lool buñ déggee rek dañuy yéeg ne daal téere la boom te nii bàyyiwut benn thème thème bu ab jullit soxla rek dana ko fekk ci biir bu ko liiree seetantal mm-hmm. tey dana mm-hmm. mm-hmm. ko mën a jariñoo kon ñëpp ko bokk waaye ñëpp ko mën a jariñoo xam naa day mel li ñu dese ci waxtu bareetut euh, téere bi fi ñuy jeexalee rek am na solo lool ku ko bëggoon a am tey jii fan lay jaar ba am ko xam naa sax balaa loolu da ngay tontuwaale ndax doon na téere buñ mool ak buñ ko mooleet fan lañ ko Mhm. moolee ku ko bëgg a wan yoon lay jaar ngir man ko am sëñ Abdoulahi ah waaw kay jërëjëf sëñ Mbàkke ci laaj am solo yi ak uh, ñañ say am solo yi ci toftal waaw téere bi nga xam ne mooy tudd amaalu muhaadaraat ramadaniya al munaqida fi masjidi tuubal jaamia te daayira muqaddamatul xidma amal ko uh, mu al isdaaru thani uh, moom mm, comme niñ ko xamee rek Euh, bii moom dañ koy wecc bu njëkk ba moom téere ba al isdaarul awal bu boobu daal lañ ca mooloon daa bari wutoon te daa daanaka dañ koo dañ koo séddale jox ko àddiya noonu moo tax mu gaaw a jeex bii nag moom yàlla dogal na mool nañ ci lu xaw a lool waaw euh, ku ko bëgg tamit bari na ay barab yoo xam ne ku ko dem da nga koo fekk tey ci njëg gu xeewala gu gu gu gu jàppandi francs lañ koy wecc Euh, ndax mool mool nañ ko ndax mool nañ ko mooy kon ginaaw xamaa kon ñu ñu ngi koy ñu ngi koy wecc ko ci barab yi rek mooy wane ne kon mool nañ ko mool nañ ko euh, ñu ngi koy moole ci euh, barab bi nga xam ne moom la suñu Cheikh Fatma moom tamit daarul daarul daarul nasr bu daarul minan al minan daaru xidma waaw daarul himma daarul himma ñoom ñoo ko foofu lañ ko foofu lañ ko moole Eh, téere bi foofu lañ ko moole am mool nañ ci lu mat ñetti ñetti junni yaakaar naa ah, jamonoy koor gi biñ ko gaaralee yu bari am na ci ñoo xam ne jox nañ jox na jox na leen ji lu bari tam jox nañ ci Cheikh Mamadou Mountakha bi nga xam ne moom mooy kilifa ak lépp eh, kilifa yoon wi moom tam mu rafetlu ko lool jox nañ ko mat ñaari téeméeri téere ngir eh, ñi nga xam ne dañ fay ñëw ci ay gan yu gëstukat man man man leen dinañ ci jox mu nekk ab delluwaay teerew la ba am solo daal boo xam ne mool nañ ko daarul xima ñëw ko fa lañ ko moola ci atum 2022 bi mu toll ci kon kon lool barab yi ñu ko war a mën a amee tamit barab yi bari na Touba gi mënas na ko fee amee ci maktab maktab yi nga xam ne moom lañ xam fii naka noonu te am na ci maktab yi nag maktab yi nga xam ne nga xam ne dañ ko faa def noonu nga xam ne ku bëgg a liir te te mën naa am jàppandiwut ci yow nga mën ko am mm, foo foo jëm yóbbaale ko fa maktab Cheikhul Khadim bu mag bi mi am na fa am na fa ab lim maktab waaw daare kaamil waaw biñ dañ gën ko miin ci daare kaamil maktab Cheikh Mamadou Bachir bi nga xam ne suñu Muntaxa moo ko fa def tamit am am na fa euh, naka noonu tamit yeneen am na ci ci bu dee fi ñu koy jaay wecc ko moom am na maktabu moo Mahmoudan Sey mi nga nekk buñ kër suñ Murtala am na fa maktabu Cheikh Ibrahim Mbacke mi nekk kër suñu Daamaata maktab boobu ah, tamit ku fa dem tamit da ko fa mën a wecc ko maktab majalis eh, Dakar Norfra ci eh, sëriñ Jili eh, Jili Ba am na am na fa sëriñ Seex tamit Dakar Parcelles Assainies case ba am na fa ku ko bëgg a ko mën na koo dem foofu maktab sëriñ Mbàkke Lo bi ci buñu kër sëriñ Mbàkke Madina am na fa moom itam maktab Xaadimu bi nekk kër sëriñ Baara Euh, ku ñuy wax sëñ Mor Badiane nekk fa mooy bi jàkkaarloog jumaa ji ci côté rond point bi foofu te am na fa am na tamit ñeneen ñoo xam ne am nañ ko ci yeneen yeneen barab euh, Thiès Thiès it am am na ko yor euh, ku ko bëgg Thiès tamit boo jokkoo ak kaka yor foofu rek wala nga jokkoo ak noon danañ fexe ba nga ba nga jot ci incha allah naka noonu tamit xam naa loolu waroon nañ ko wax ci tàmbali bi wala mbay téere bi. comme niñ ko taalifee niñ ko taalifee wax nañ xam naa waxoon nañ ko ci téere bu njëkk ba may dañoo jël waxtaan yi nga xam ne moom lañu ñu euh, moom la waxtaankat yi di waxtaan ci koor gi moo tem yooyu ñu jël ko euh, dajale ko tànn na ci yi nga xam ne jàpp nañ ne yii moo gën a yitteel ñu xaaje ko noonu maxaawir yi nga xam ne moom lañ wala xaaj yi nga xam ne moom lañ tudd ne benn mu nekk yi aju ci fiq ak yi aju ci xadaaya sa mooy gën a jonjoo lool ak ci tem actualité ñu ñu jël ko dugal ko ci ak yoo xam ne dafa aju ci wàllu murid yeeg tasawu noonu ñu ko xaaja noonu ak fatawaa yeeg demee noonu niñ ko taalifi nag niñ niñ fexe ba def ko ab nag benn bi dañoo sàkku ci eh, ñi nga xam ne ñoo doon taxawee jotaayi waxtaan yooyu doon ko doon ko jàllale eh, ñoom ñu waajal ko seen bopp ñenn ñi waaye day ñenn ñi bu ñuy ñëw dañ waa fekk nañu waajaloon ko bindoon ko bind ko ci araab arab ñoo joxuñu ko wala ñu yónnee ñu version électronique bi bari na ci nag ab te ay itam am na ci yenn thèmes yoo xam ne nag moom mm, maanaam ñenn ñi seen ñàkk jot ak yooyu tax na ba ah, ñoom du duñ duñ duñ ko waajal ci mbind lépp maa daanaka dañuy bind lan la ñu xam ne moom la ñuy sukkandikoo di wax rek waaye jëmmi wax ji yëpp mawduwaat bi binduñu ko woon ñenn ñi tamit amuñu woon wala amuñu jotug man koo man koo man koo bind lépp loolu nag bu amee te ñoo gis na mawdu bi am na solo lool ci ñu dugal ko ci téere bi yenn yi dañuy tànn ci membre yi nga xam ne ñooy membre daayira Moukhaddamatoul ma ci bokk ci lañ na saqaaba mooy euh, commission culturelle bi ñu ñu ñu ñu ñu takk leen ñu ñu sant leen euh, ñoom ñu ñu jël ko arab euh, déglu kii audio bi mooy son bi bu nappee bind bindaat ko ci ay arab buñ ko bindaatee ci araab nag bu nappee dañ koy yónnee ki nga xam ne moo ko doon def moom mu toppal ko boppam bu ko toppee nag yónnee waat ñu ko ñu door ñu door ko door ko ci téere bi bari na ci ay ay mawduu yoo xam ne noon lañ ko defee maanaam moom dañu lenn ci mbooloo mi ñu bokk ci e, ci lañ na saqaaba bi ñoom lañ tànn e, ñu ñu ñu diglu e, audio bi bu ñu nappee bind ko ci arab di yónnee ko ki doon def mu mu kii ko mu yone mu topp ko yónnee waat ñu ko ba bari na ci ay tam yoo xam ne noonu lañ ko def am na yoo xam ne nag ñenn ñi mbooloo ñi ñi ko doon taxawee ñoom ñoo ko bindal seen bopp waaw xam naa loolu daal euh, ci ci leeral bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ko doon taxawee tamit mm, fekke ne kii mooy nañ ko ci tàmbali mooy sëriñ Abdul Mutalib Bousso moom sëriñ Alaaji Bousso Ndumbe moo ko doon moo ko doon coordonné moo moo moo jiite woon jëmmi bi ci tàmbali moo dajale gi dajale moo doon aadi yi ak euh, tasnif ko ginnaaw bi nag moom itam mu doon ànd àndoon ci tamit euh, sëriñ Abdou Khadir Bousso Alxaaji Seex nga xam ne moom itam mm, daanaka liggéey yu mujj yëpp euh, ci tasnif beeg toppaat geeg ak euh, tasnif ga ak moo nekkoon mm, doo ko doo ko moo ko doon coordonné di ak di da ci jokkoo ak ñoo ko ñoo ko doon mbool moo ko nga xam ne mooy njiitul lañu saxaab mooy commission culturelle bi ak yeneen membres yi nga xam ne yëpp nekkoon nañ ci am na ci Maodo di wax ñi nga xam ne bokkoon nañ ci euh, mooy sëñ imaam Ahmad Bousso tam nekk fii ci France léegi bokk na am na ci Maodo di wax moom moo ko am na am na keneen beneen mbokkam rakkam la euh, sëñ si Ahmad Bousso moom tam léegi di jamono yi yaakaar naa mu ngi mi ngi Qatar nekkoon fii doon jàng demoon nekkoon na fi kon day wane tamit mooy ñëpp ci mu ci yoon wi lañ ci ci murit gi lañ ci dëkk bi lañ. tey it ay ay ay ndaw ndaw ay ndaw lañ yoo xam ne eh, yàlla dogal dogal na ñu am xam-xam ba mën a déglu ay waxe wolof mën ko bindaat ci arab am na tamit eh, eh, kenn ci mbokkee muy sëñ Abdul bu so moom itam nga xam ne moo doon coordonné kii bi ak sëriñ Mahamad Bousso moom sëriñ Fallou Bousso moom sëriñ Abdul Mutalib moom itam mi ngi nii mi ngi kawet jamono ji bokk na ci ñi nga xam ne ñoo doon ñoo doon taxawee yenn ci tomb yi doon ko araabal euh, xam naa ñooñu ak mbokk yi nga xam ne ñu bari daal ñoo xam ne yëngu nañ ci ci wàllu bind gi ak wàllu leeral gi euh, ak wàllu taxawaay yu am solo yoo xam ne def nañ ko si xam naa noo ngi jéegul baax ci guddal gi ak jërëjëf sëriñ Abdullahi kon téere baa ngi noonu doon téere bu am solo boo xam ne waa daire bi di muqaddimatul khidma ñom ñoko dajale jele ko ci ay woromi xam-xam yu fasanti ko ci dekk bi di Touba tànnoon tamit ay tem yu wote lol ngir garel ko ci bir mm-hmm. doon na téere boom ni mool nañ ko ba tassaro na fim tol toll ku ko bëgg rek bo démé ci yenn ci maktaba di nga xamné ne sëriñ Abdullahi tudd Dang ko fa mën Makta ta maktabar yoy yu ci ëpp rek naka ñi ngi wër jumaatu Tuubaa ndax maktaba bu melne bi señ ginnaw rek di e, sering da Lo japp ni na fa ak yu mel na ñoom ak señ dan sëy ak bi nek kër señ baara geek yoy yëpp rek ku ko fa soxla dang ko mën am xamna kon day li ñu ci waxtu bi jeex na tak kon dañ lay jox rek nga tàggatoo ak mbooloo mi ñu taj jotaay bi ba yeneen jëmmi jamono. waaw kay sëriñ Mbacke jërëjëf xam naa di santaar rek ci jotaay bi ni mu am ni mu tëdd ak ni amee solo di ñaanal laa Cheikh Mamadou Mountakha mu yàgg fi lool ti wér ba nu ànd ak moom liggéey bi lu bëree bëri di ñaanal laa tamit ñi nga xam ne ñooy kilifay daayira bi yëpp e, tàmbalee ko sëriñ Afia Bousso al imam ak e, sëriñ Abdoulaye Bousso Thierno mi nga xam ne mooy njiitul. Euh, lañ na saqaawa mooy comme secrétaire ak sëriñ Assane mi nga xam ne mooy moo koy Assane Beng nga xam mooy coordonné liggéey bu lañ na saqaawa ak sëriñ Abdul Xaadir Bousso nga xam moom tam daanaka téere bi moom tam mook sëriñ Abdul Mutalib Bousso waaw suñu El Hadj Ndumbe ñoo ko doon bokkoon ci ñi nga ne ñoo ci gënoon a ràññi ko ci taxawee ko ci saytu gi euh, ci coordonné ko ak ak euh, topp ko yoy yooyu dag dajale tam bi ak ñi nga xam ne ñëpp daa ñooy kilifay daayira bi ci sëriñ Abdul Ahad Mutalib sëñ Abdoulaye Bousso Muxtaar sëñ Abdoulaye Diop nga xam ne waa secrétariat ñoom ñi nga xam ne ñoo ñoo doon jokkoor kilifa yi ci santaat ba mu baax di ñaanalaa sëriñ Amsatu moom sëriñ Sohaybu nga xam ne moom moo moo mool téere bi eh, moo ko mool ci ci ci ay nafaxaam di ñaan suñu borom ko ci téere bi wam dool doolu ko taw fiix ko ab nangul ko liggéey bi ak ñi nga xam ne ñëpp daal jàpp nañ ci téere bi ci ak nuñ ci mën a jàppee ba bam mu sot te lépp liggéeyal liggéeyal islam liggéeyal xam-xam la ah, te ñooñ ñi ci jiitu may ñi nga xam ne ñoo doon taxawee waxtaan yi mooy borom xam-xam yi nga xam ne ñoo doon def tam yi ñooñu moom ñooy ñoo ñooy daanaka ñooy borom téere bi ah, ñoo ngi sant ñëpp di jéggu lu baax ci kàddu yi loo xam ne dëng na ci rek ñoo xam ne noonu ñoo mënta wax waaye kilifa yi nga xam ne ñoo ñu doon wax loo ñoom ah, bëggoon nañ mu mat sëkk mu jàll ci bu baax a baax xamna lol dal daal téré bi amal muhadara ramadania ku ko bëgg nak eh, bëgg am tamit bari na ci barab imam fi fii ci Tuubaa eh, yomb na fi lol yom eh, barab bo barab boko barab yi ji yépp na am am na fi ku ko man am ci barab yow tamit bo ñëwé ci jumaa ji fii nii boo laajtee serigne hassane Beng da nga na fexe ba nga ba nga ba nga am ci inshallah allah nak na amna Dakar amna ci yenen yenen ki tamit Dakar amna ci fi to fi weti Masalik Jinaan am na maktab bu nekk amna, amna am na fa ci weti Masalik sori wa xamna naa ñoo ngi sant di di jéglu baax di ñaanal suñu kilifa yi ñu yag fi te wet ya-, yàlla defal wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakaatuhu jërëjëf serigne abdullah Lo eh, jërëjëf waa daayira Muxaddamatul ngi sante bu baax mbolé mbokk yi nga xamné ne top topp seen émission bi di al wal qalam di Santo bu baax it mbooleem borom xam-xam kat yeek yeeg kat yi nga xamné ne ñi ngi fëgg seen buntu di leen dalal ta ñu koy ubbil di sante bu baax serigne Mamour Touré njitul seen bi dal khadimiya di rafetlu ay taxawayam di ñaan suñu borom gën ko dëgëral ba nalu reuy wi nga xamne ne la am ci tassare njàngaleem serigne bi mu daje ci ak tawféexi sëriñ bi di sant sëriñ Mbàkke Mbegere mi nga xam ne moom lañ àndal moom it mu koy jël di ko tasaare di sant daal ñëpp di leen digaat beneen jataay ak beneen téere ak keneen ci borom xam-xam yi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu groupe Asna Khadim di kër gu yëngu ci mbindum al alquraanul karim ak xasida ci mbindum rafet te wow ak mool yu taaru moo leen di jaajëfal ci safoo gi ngeen ko safoo si wàllu liggéeyam groupe Asna Khadim indil na leen mbokk yi lépp luy tax seen wàccaay gën a yëwan